tout droit Fadiane arbitre sifflé na premier combat si poids lourd Elas Ndiaye Joal Yankoba Niodior Seka wet ka jam bugum tefe sogor nagi muña moy toxa fat i ñana njom ne miñe ka fafa mam nun fap nun tokor nun maak nun dana nde umen ambasa xay nun a yaqu teen Doudou ak Karim ñaari lu bëre ni Fagna2 Doudou Sané Karim cey ndey Fatou Adama Diallo kid practice Yeah. Thank you. Ndangaan Djidak bu Djilass benn arbitre na ate benn combat lii mooy lan dañuy dalante Djidak 15 Thieb Joal Tony Junior Tony doon na ko signalé woon na de moon bi mu laay laas ñaay Fall Jijak Jilas Jijak zongal na Karim attention Jijak la ilaha illallah eh Jijak Jilas Karim njool du bon la ilaha illallah we pep Karim phénomène la jinne Karim jinne la dari Injak zonga lewat na ko umay. Tasyo Karim Dijak. He he. Thank you. Karim Sow ak Cheikh Djilass Karim Mburu Pape Fara Faye borom Diofior maa ngi lay bëggee Djidja Djilass Karim koy dajale waaye nee naa Karim jinne la waaye fàtte na Karim Karim Sowal ji ak waaye moon fim la ak El ci wet gi moom daan na Elhadj Ndiaye Karim Sowal Djidak e Fatou Adama Jalira hommage à Lamine Sali Diamniadio grand champion ndeysaan moo fi bàyyee ko ci lu yàggul dara Lamine Sali Diamniadio yal na ko yàlla doon yërmande te xaare ko aljana Lamine Sali ñu koy jaale waa Diamniadio boori géej Djidak Djilas Karim Karim Djidak deuxième avertissement pour Tariku aca deuxième round baa Karim Joal aca ndeysaan leen le 3 ak le 4 mars TV moo fa woote tegal mbëri 1 million 500 mille ñaari fan ñaari drapeau poids léger 500 mille poids lourd million. le 3 ak le mars incha allah ñu ngi woo amateur yeeg mbëri ñu ngi woo waa axlu làmb njab jilaas Karim. Karim wàllu arbitre waat na joxewul avertissement Karim Djidjack Djilass Karim takk na Djidjack attention war na ko ndombo Karim war na Djidjack ndombo eh! Karim Ndiol dem na ci jante moon bu fim la mbir Ndiol am na ngem moon bëre curuku curuku la ko buga indil mbir indi ko bëre tàngo tàngo nee na ko ñiix si njomb fere ne ko da koy xar wala sim jàpp baax na booram la xar na ko mu bañ bàyyi na naax ba min moon revanche par procuration moon moo fi daan léegi hélas ndaa jël bu rëy bu daana teem bin njool ah, hmm. ah ah ah moo doon gis finale. Mbindol moon Fimela. Thank you.

comité d'accueil bi moon mi moon xana panga conga xed Turbo Tivaouane Ameth Jox double moteur moom Ameth Jox moo fi génne moo du jam tari daan bu siyaaka mu muur waaye dañuy boole ay borom baax. kuy jël avertissement Lamine. kon loolu bu amee it benn boole. ne si ma duma benn boole. te ànd ak ñu toll nii waa Farga. Turbo day jël avertissement avertissement pour Turbo. jaarale ko ci moom du ma am lenn ko ciy delloo. dama koy téye dëgg. ñaareel ba itam oh. ngeen xam ne man Farga la ndax am naa ko soxna.

kon boo ñëwee tey pour taxawaat bi di nga fête victoire colère bi turu union de Fadial ak président ñoo ngi lay sant di lay gërëm te ci lay dalal ak jàmm turbo mi Ameth Thior daan na Ameth Thior Ameth Thior daan na turbo Ameth Thior daan na Ameth Thior daan na turbo wala daan na turbo waaw waaw demi-finale poids léger Laye Diouf Ndianda ak simal laju Diouf moom mooy borom ngeen bulu vert moo féetee seen càmmoñ simal moo féetee borom moom mooy ngeen bulu rusli li di bëgg simal di bëgg janda Ndianda Laye dëcc waaw man day kontaan naa euh, Issa di la gërëm di la félicité ndax bu yàggul dégg naa sa benn nomination. laay njaanda dëcce. laay njaanda dëcce. laay njaanda eh, <laughs> dëcce. Eh, waay ah waay. laay juuf ak dëcce Bukan sehari la sa rakk la te fas yéen ne na la jàppale ci waa Fadial xam leen ne Bougane am na projet de développement fii ci biir Fadial soobee yàlla nga ko tënk fi ma nekk dinañ waxtaanaat dina ci taxaw jàppale maire Alpha deuxième demi-finale baa ngi noonu Babou Sa Sapeur bu Bargny ak Laye Siry bu Fissel daje nañu Laye Siry waaw kii li muy bëre nii mais égalil sa action buy bëre public Thank you. Thank you. Sapor na ko. Lamine confection dikk na blouson de qualité ak tissu yu baax yi blouson yu rafet blouson yu am motif ak finition yu nice Lamine confection rek la am blouson simple wala deux pièces trois pièces quatre pièces ba ci cinq pièces couleur boo ci bëgg ak taille boo soxla ñu defaral la ko commandé leen ci 78 344 32 45. livraison bi nag partout la ci biir Sénégal ak ci diaspora bi. ayca arbitre sifla demi-finale Karim Sowal ak Modou Fibla. jaar ci ginnaaw mu jaar sama kanamu caméra Amet Diop moo war a daje deuxième demi-finale bi moo daan Diouf la Philippe doomu buleel bi moo daan siyaar naa la borom daaf doomu ndeyu Aliou Sow gay naa ko borom Sow àll policier Aliou naa la moon ak Karim moon takk na kott na ko eh, Karim daan na Karim en moon Karim moon eh, na moon Karim Joal eh. Ahmed Dior Tony Junior deuxième demi Tony Junior Ahmed Dior Tony Junior Ahmed Dior doon génne na ko saako ya. poids lourd fii ci Badiane. diggante Ahmed Double Moteur. Double Moteur lañ avertir ci action bi. Junior. Double Moteur jël na premier avertissement. ñu ñëwaat arbitre sifflé waat. loolu la fa série de Kër Mbir. dangay ñàkk boo koy naatee dangay diggante Laye Diouf bu Ndianda ak Pape Moussa Sapeur bu Borgny fii ci Fadial le 26 ndeysaan sama grand bi gaan Diouf borom campement nge campement ndangaan tey daa seetaan fi supporter rakam laay o oh, kiino pogum gaan ziar naa la ndeysaan bi bëggee waa Njanda di bëggee waa Bargny Lebu yi laay Diouf sapoor mayu ko mu xalaat de daan na ko wala waaye laay Sopor daan na ko Sopor jël poil sa ba walaay laay nu mu walaay waa dédaayu laay bi Sopor bu bar nit laay laay ne laay laay li ko nekk digg la la waa laay laay day jaaxaat bi ah. teel leen mi laay jógal muñal bëre noonu la def nga lu ne daanoo ñëw nga ñàkk laay jógal nag laay jógal rek laay jógal nag laay ah. jógal rek laay jógal waay laay fi embouteillage rek laay droit kel ISB yaa ngi noonu ah képp ku bëgg a ay son lamb yu neex mbayang lu ndey faatu ak keneen ku mëna doon son yaa ngi ci biir 10000 francs lañ koy jaayé voilà ay lu mot presque 300 son 285 son lamb mo ci ne nga def ko sa auto dégloo ko Dakar bo Mali du jeex nga def ko sa kër wala sa place di ci déglu 2 jours du tax son yu jeex kon amateur yi commander len ci 77 804 86 84 wala 77 779 80 73 final baa ngi noonu Karim Bousso à la droite Tony Junior bu Keur Mbir à gauche arbitre sifflé na ndeysaan ndeysaan di bëgg waa Fadial sama gara tam suy jogondong siyaar naa ko El Hadji Malick Ndong borom doomu Faa Jàlla maa siyaar Biyoro Njaay ca Marok ndeysaan waali lay fii siyaar naa ko sama gara Ousmane Ndong Fodé Junior Mouhamed Sarr le policier borom bureau des passeports Mouhamed siyaar naa danku nak fa jaal pap demba ningi na sama gara bu baax njool wala mujj mu nañ di xaar le retour to Pape Demba Fa ñoom Sonko ñoom Simon Tembe waa arrêté Jakarta siyaar naa leen Ablaye Faye Fa Dial maa ngi koy dégg Modou bitik fii ci Fa Dial Modou siyaar naa la desandi be waa Fa Dial su lim ñi ma fi xamantel fi ba ginaaw suba duma fi joge Karim Karim gënu na saaku ya dégg avertissement avertissement pour Karim di bëgge wa Bagana waa Karamoxo wa cholay wa ndaron wa Medina Fadial wa lew na weli nga ndeysaan papa man ba ngeen ñan njaata ndeysaan di bëgg nag sama nijaay Malick yëpp tey la doon def mariage séeri ndey di leen di ñaanal yal na sëy bi barkel ndeysaan Diène Ndaw Fadial bu nu la fàtte Diène le militaire di bëggee Sady bu ndaw moom tamit sama dara la Karim Joal doonu Senior arbitre sifflé waat na ndeysaan Tony Junior Samba Diawara Sarr Sentinelle moo ko indi Alassane Mbodj borom Koumbal siyaar naa ko ndeysaan Alassane le policier waaye Bassar maa ngi koy borom Sowal Tony daan na ko Tony daan na Karim jël na la